Rayo, moi quatrième opérateur de téléphonie fixe Sénégal basé au ca nous ñu taxawal depuis 2015 service au Xayo yi mën nga ko am fait Pour dem ci àdduna foo nekk mën nga wut abonnement surtout yéen ni mbokk yi Italie so bëggee xéwalu ci bànneexu au da vous joxe sa carte d'identité Sénégal ou le passeport nga avez am ci application Xayo ak numéro téléphone bu bees li ci gëna neex ak 10 euros mën nga wuti une heure de temps Sénégal 5 euros mën nga am 40 minutes de communication yokk si nag 15 jours yu nekk waa Xayo dinañu def promotion 100 pour cent wala 200 pour cent ngir gën a yokk sa waxtu waxtaan ba sa xol féex ak waa Sénégal su fekkee da ngaa bëgg liggéey ak Xayo te doon revendeur di jaay crédit wala nga bëgg puce pour woote gën a yomb te gën neex Manga Joko ak Hassan Hayo directeur marketing Fiji Italie 33 94 63 45 73 33 94 63 45 73 Yomi nek Italy, Italie dawal wuti sa abonnement Hayo ngir mbokk yi ànd ak ñun ci seen chaîne bi di xam sam réew TV dellu siwaat nañu ak mbégte di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi ak ziara bi sëriñ Muntaxa Mbàkke mi toog toogaayu ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ak njabootuk sëriñ Tuuba gépp di nuyu ak ziara Sering Bassirou Anta Niang moom mi toog borom darul moxti ak njabootu borom darul moxti yépp di wéyal waajtaayu màggalu darul moxti atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett 2023 di giro ñaar fukkeelu magal gi ak juróom ñeent ñu jari bokk yi ak nun ñëpp rek ci kippaango yi ak fu ñu man di nekk fas yéene ñëw nag ak yéen ci fukkeelu pàcc bi ak ñaar di douzième épisode bi àndoon na ma ak yéen ba bi sëriñ bi demee ci géej gi bàyyi fi boroom darul mooti ak njaboot gi ak fa mu jaar jamono yi muy nekk guy nguura ca la ñu defoon ay pexe bind ab leetar wax ni sëriñ bi nekkatul wax ni tubaab yi ñoo bind leetar ba te loolu wérut ndax la jiitu sëriñ bi tubaab bi mësuñoo yóbbu kenn mu wàcc ab liggéey ñuy bind ay bokkam naan ko diw nekkatut te li ciy firnde mooy tubaab yi bu ñu bindoon lettre bi ci Gabon fu muy jaar ba ñëw ndax wax naa leen ni sëriñ bi am na ñetti at yu njëkk yi kenn xamul ci moom dara bu dul baatin ba Abdoulaye Ndour la gis mu jëm ci Sénégal mu yóbbante ko lettre yooyu mu joxe boroom Daarul Muhti kon foofee ca guy Ndura fa ñu bindee woon ab leetar ni borom daarul muxti sëñ bi nekkatul na tasaare njaboot gi te waajuram soxna Fat Issa Diop xamal ko ni ko sëriñ Tuubaa moo ni woon moo may nungu ci bàmmeel te maa ngi nii di wax ak yow kon sëriñ baa ngi fi boo ko sàkkoo gis di nga ko gis ndax ñoom ci batin li tubaab di wax telepati ci lañu doon jokko ci lañu doon communiquer ñoom ñaar ndax sëñ Moussa Ka ma ngay wax ni Bamba ni woon bu daa leqaamlu fa daarul manaan maa ngi toog di lablu man Bamba it su may leqaam bay kabar Ceerno ma daa am maa moomu ñi ñaaree mbër te booba Cheikh Bamba nga woon konakiri te Ceerno daaw ko xamal manaakil kon boroom Daarul Muxti lu nekk jéemal nañ ko ko mook njabootuk Sëriñ Tuubaa gi waaye walla fi ñoo wax ni suul ker du ko teree feeñ Daarul Manaan googee nga xamante ni ci ndigalul Sëriñ Tuubaa la ko Usayd bi sëriñ bi nekkee Gabon fa la nekk ba ni sëriñ bi ñibbisi fekk ko fa mook njabootam gépp borom Daaru Muxti waxoon naa leen ni Touba këri sëriñ Touba yooyee ay néeg nga fi woon ak ay téere mu wut ñaari dong bàyyi leen fa ñu di ko saytu waaye doñ doñ ji mu doon def yépp di tuxu fu mu mas dana wut kees goo xamante ni kaake yu fi sëriñ bi bàyyi muy bagage gaal yi moom rek moo cay nekk mu wut ay dong yooyu seen xëy ak seen ngont mooy saytu وكاك إيهو إيه دقالي الديري بجمو مخي keroog bi sëriñ bi ñibbisee bàyyi ko Gabon Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké yàlla na sunu boroom yokk ay leeram moonu nettali ci màggalug Daaru Muxti ñi sëriñ bi day bi mu ñëwee boroom moo Muhti génne kaake yi li tubaab di wax bagage yi fi bàyyi woon moom sëriñ bi ci ñoom Xuddoos nee na warga wi nga xamante ni sëriñ bi da ko doon jëfandikoo mu des muy desu warga ak desu suukar boroom daaru daf ko génne laalu ko xalima yi nga xamante ni sëriñ bi da ko sampoon ci biir daaji yépp boroom borom daaru Muxti daf ko génne nee na Sëriñ Tuubaa ni ko Cerno man de dama xamut lii ak wóor la wala danga amoon ci loo jàpp ndax sëriñ bi bu tukkee bàyyi desu suukar ak warga borom daaru Muxti war na ko mën a jëfandikoo waaye moom ci ndigalul sëriñ bi rek la daan wéy daawul dàkk sëriñ bi li wala fi wax dàkk maanaam bu toogee ak sëriñ bi satala ga nekk fee mu xam ni sëriñ bi yitte woona satala gi li fekk néewu ko ceerno jox ma satala gee borom daaru mu ci du ko jox ndigalam rek lay déglu du ko dàkk Cheikh Abdul Xuddus nee na bagage yooyee di kaaka ya bu mu ko génnee benn par benn bu jox ko sëriñ bi yëpp sëriñ bi daf ko ni moo Ceerno ndax bu fekkonte ni yaa dem ma des fi dinaa ko man nii nga ko mane loola daf koy soññ ndax boroom daaru mooti bu ko manee sëriñ Tuubaa tax xeetu son ñeen la rekk kon loolu mooy firndeel li tubaab di wax satisfaction boo xamante ni sëriñ bi am na ko ci mboroom daaru Muxti bi mu bàyyee woon yoon wi ak njaboot gi moom boroom daaru muusi <clears throat> daana wax ni man de duma seenub sëriñ waaye maay seen jëwriñ sa jëwriñ mooy séddale loolu Cheikh Abdou Khoudous wax na ko ku nekk dégg na ko kon gàcce ngalaama moom sëriñ bi bàyyee ko njaboot gi ak yoon wi ci ay xat-xat loolee sëriñ Falilu mbake da wax ni sun bay cierno jangal nanu banni ar mu yarnu banu ni neur ndax borom darul moxti ak taqoom akuk ak sëriñ bi mag ñi njëkkoon top bi bi sëriñ bi sañcee Tuubaa am ñetti at atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk ak benn di at mi Cheikh Mahamadul Amin feeñee borom daarul muxti yeewi mag ña toppoon Mbàkke Kajoor <coughs> jéggalu de mu yeewi leen ñu dellu boroom daaru Muxti moom yéewu ko mu dellu waaye def ko ni bis ni tey de laq nga sama ngërëm loo xamante ne xarab dootu ca topp bis ni tey dama bëgg nga beru di xëyal sa bopp di gontal sa bopp wut sa kërug bopp Cheikh Abdul Xuddus moo ma wax ni ma waajuram boroom daarul Muxti nee na ko Sëriñ Tuubaa day wàcce na ma lu dul benn du ñaar wax na ma ko ma dégg bind na ko jox ma waaye saa bu ma ko waxee dama naan ko yaa ma njëkkoon a xëy te wàccoo kon du ma wàcc sëriñ bi Tuubaa la ko njëkk a wàccee ni ko yow bul dem waaye beral sa kër di xëyal sa bopp ak di gontal sa bopp sëñ Musaa Ka na ca mooma at la ko digal mu am kër te amuloon sax néeg te dëkke kër kër borom Daaru Muxti booba ci kër sëñ Tuubaa gi la dëkk ba ko sëñ Tuubaa digalee loolu sëñ Musaa Ka nee na daf ko ni bu mu ko ne ca mooma at la ko digal mu am kër te amuloon sax néeg te dëkk kër-kër boobee wax ak Cheikh Bamba naa ko man dey fetal jihaad rekk ma doy su doon doy ndaam naa ko loo yëngal soxub jihaad la te foo taxaw may sani wër la aar la te dinga jekki ba junneekub tànk ñoo yem fi yow sallaahu dootoo bank may naa la ngay dund ba waxtu wala soob deesu la seet si doo fi tàggoog lu la soob loolu la Sëriñ Tuba wax borom Daaru Muxti ba mu ko dee mu ni ko li ma lay jëfal lépp xeeb naa ko tey su ma sañoon dama lay fetalal jihaad mu ni ko nag may naa la kon ngay dund ba waxtu wala soob deesu la seet si doo fi tawat te doo fi tàggoog lu la soob borom daaru muuti dund na juróom ñett fukki at bopp musu metti kon jëm ngi nonu joo xamanteni lolé sëriñ musa Ka wax ni yawma alastu lako bamba tanon murid di yi bañ la wax balé le gennon mu del waxat ni mom lañ duyel ndabam mu bokk ak bamba seex yépp dañ daan tàng naan ba nit ba kon diggante sëriñ bi ak boroom Daarul Muxti sëriñ bi moo ñaanoon sunu boroom noonu ma ko waxe woon ca poroxaan sunu boroom may ko boroom Daarul Muxti ndax dafa am ñaar yu ko sëriñ bi wax muy Thierno mi nga xamante ni musula juuyoo ak man ci ak ndawam akuk magam ak Thierno mi nga xamante ni musula tàqalikoo ak man ci ak magam ci ak ndawam akuk magam may wax ni musunoo juuyoo ba man moo ma gën a lëti ndax nit ki man ngeen taqoo mu di la def lu la neexut nga ni dama koy muñe diw kon lii mbir mi mooy musunoo juuyoo te loolu Serigne Touba moo ko ko wax mu bind itam ni Ceerno mooy sama përëgum day joor kon jëmm ji nuy jéem xamle di borom darul mu'ti dafa jaar ak sëriñ touba fo xamanteni wet na ci lol te lolou sunu borom dogal na mak ñi andon ak sëriñ bi nungul ko ko am na sëtub isa jenn ñaanal ma bi sëriñ bi ñibbisee Touba 1927 gannaaw xew-xew ba mag ñi dañoo daje nee na maamam sëriñ Issa Diène ni leen sëriñ bu mag bi day bi mu fiy nekk moom rekk moo kàllafoon ba képp koo xamante ni yittewoo la daf lay woo nga ñëw fekk si ko waaye moom daawul jóg di fekki kenn tey jii nag gisatuñ ko maam Cerno mi moo kàllaf tey mooy ki nga xamante ni ku mu soxla daf lay woolu ku ko soxla it danga koy fekk si li nga xamante ni bi fi sëriñ bi nekkee moo kàllaf loolee doxoon diggante sëriñ bi ak nun tey sunu diggante ak cernu mii la dox képp ku ko soxla da ngay dem fekk ko moom it képp ku mu soxla du la fekki daf lay woo loolu sëriñ Issa Dienne moo ko wax mag ñi bi sëriñ bi ñibbisee Tuuba kon nga gis ni mag ñi gis nañu fa sëriñ Tuuba tegoon ñu nungul ko ko ba tax sëñ Issa Diène wax wax jooji yi mu wax jëmale ko ci borom Daarul Muxti bi sëriñ bi ñibbisee

ci fukki fan ak ñett ci weeru juin ci la ko tubaab yi yóbbu gànnaar mu bàyyiwaat boroom daarul moxti ak lenn ci njaboot gi daarul mannaan googe waaye likkitoon nañ fa jël ay sàmm ñu sàmm tooli boroom daarul moxti foofee ca daarul manaan ca fetto daara jëñ doon wax fetto ruural ko faat ay taalibeem jàpp jawriñ ya tëj leen tooñ ko jaañ ko doole sëriñ Abibu Balla Gajaga bokk na ca jëwriñ yooyu tëjoon kees sëriñ Aliou Guèye sàmm yaa ko faat ak sëriñ Malick Cissé ñoom ñaar ndeysaan boroom Daaru Muxti def na xasida gu gàtt di leen ca ñaanal li leen waxoon ni leen moom jàmbaar la joj bëggul ko ko tooñ loole metti woon na ko ba taxoon mu génn daarul naan dem wëri ay daara waaye sëriñ bi moo ko digalaat mu dellu Daarul Manaan booba sëriñ bi mu ngi ceyeen jolof xew-xew yooyu bi mu amee sëriñ bi soo demee ci waxi sëñ Musaa Ka waroon na fa boroom daarul moo ti ceyeen jolof keroog sëñ Moussa Ka nee bi borom daaru moo ci ñëwee dafa fekkoon sëriñ bi santaane ñu woor kooru ngàtt na waaye nee na keroog bi borom daaru moo ñëwee sëriñ bi dafa digle na ñëpp dog ñu dog seen koor sëriñ bi xamal ni leen tey jii ku fi yendu rek ci bis bi fi cer na ñëw saw yaram araamal na sawara mbokk kon li ma leen waxoon ni leen dama leen di jéem a xamale ak borom daaru waaye tuut naa lool ci wax kan mooy borom daaru muxti kon fukkeelu pàcc bi ak ñaar dama koy yamale fii muy douzième épisode bi xam naa épisode yi ci topp dana ñëw nag ci ay jikkoom ak ay sañcam ان شاء الله ناخ فوكي باتي جيروم لا ورا دون موي ليكو دالي سي بن بانو شعبان ديو برخلو ما سي بيسو ماغالغا دي فوكي لو فان اك جيروم فاسنا نكو ييني اند اك يين ngir di len jema xamal borom darul morti kon dama len di sante di len geureum yeno akipango ñi safo mu xam Rew, réew ci Facebook bi waaye support xam Rew, réew te ñu nekk ci Amérique Serigne Bamba Mbeng ak sëñ Bassirou Fall ñoom it ñu ngi leen di nuyu di leen ziara ak soxna Oumy Sarr ca Los Angeles moom itam soxna Tuuta Bayda Njaay nekk ca France moom it duñu ko fàtte di ziare sunu xarit ku baax di Serigne Abdou Aziz Touré ñaan suñu boroom mm, yàggal ko fi te wéral ko te may ko mujj gu rafet kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaax rek ci ngeen abonné ci seen chaîne bi di Xam Sam Réew TV ngir vidéo bu ñu dugal rek ngeen am ko kon ma di leen jox dox daje ca fukkeelu pàcc ba ak ñett Italie yéen ngeen xew-xew bu neex bii xayo dikk na ak xéewal yu amul fenn Rayo mooy quatrième opérateur de téléphonie fii ci Sénégal basé wu ca Matam ñu taxawal ko depuis 2015 service xayo yi mën nga ko am fépp foo dem ci àdduna foo nekk mën nga wut abonnement surtout yéen ñi mbokk yi féete Italie soo bëggee xéwalu ci bànneexu xayu da ngay joxe sa carte d'identité Sénégal wala sa passeport nga daldi am ci sasi application xayu ak numéro téléphone bu bees dàq li ci gëna neex moy ak 10 euros mën nga wuti une heure de temps Sénégal 5 euros mën nga am ba 40 minutes de communication yokku si nag 15 jours yu nekk dinañu def promotion 100 pour cent wala 200 ngir gëna a sa waxtu waxtaan ba sa xol féex ak waa Sénégal su fekkee da nga bëgg liggéey ak Rayo nag te doon revendeur di jaay crédit wala nga bëgg puce pour woote gën a yomb te gën a neex mën Joko Hassan Hayo directeur marketing Fiji Italie T 33 94 63 45 73 33 94 63 45 73 yoomi dawal ka abonnement Hayo ngir Amen.